kër docteur Gaye àllarba bu jot fii ci UCAB FM jërë ngeen jëf am mbégte ak kontaan di ànd ak euh, seen rajo UCAB FM ngeen ànd ci ak docteur gay nekk clinique magi mag euh, fii si Mbacke Ndiobène euh, tey nag ñuy waxtaane li nga xam ne moom mooy li nga xam ne mooy diabète ndax gis nañ ne fan yi rek ñu ngi koy feete muy journée mondiale du diabète le 14 bii ñu génn diabète nag buñ ko waxee mooy euh, sa taux de glycémie maanaam taux sucre dafa yéeg suñ nee yéeg nag dafa am foo xam ne fa la war a yem comme ni ñu naan tension bu yéeg ak tension buy wàcc rek jabet tamit dafa am foo xam ne taux ba bu ko rombee rek dañ naan nit ki dafa amee jabet euh, loolu nag li koy mën a firndeel mooy nga dem ñu defal la analyse xool sa yaram ñaari yoon yu tegaloo yoo xam ne peut-être am na ñu naan ñetti fan ñeenti fan en tout cas daal lu ci mën a am boo defee analyse ba pare. sa taux de glycémie bi bu fekkee ne ëpp na euh, si labo yi am na ñu naan un virgule vingt six am ñoo xam ne un virgule onze dix lañu ñuy yem wala onze waaw waaye li si gën a wér daal mooy un virgule vingt six moom boo ko xasee ba romb rek si ñaari analyse yu tegaloo yoo xam ne espacé nañ deux wala trois jours wala une semaine bu boobaa dañ naan nit ki dafa amee jabet jabet nag mandarga yi nga xam ne moom lañ koy ràññalee mooy li nga xam ne moom lañ naan syndrome cardinal mooy koo xam ne dafay jeex dafa yëg si nitam yaramam ne mu ngi jeex ndànk-ndànk koo xam ne aussi dafa yëg ne euh, taux de euh, maanaam day xiif lu bari fu mu toog da ngay gis ne day lekk léegi xiif léegi koo xam ne aussi dafay mar lu bari di naan lu bari koo xam ne foo gis yaa ngi koy yaa ngi yaa ngi mar lu bari rek da ngay xam ne da naan léegi mar léegi kooku tamit ay signes yu jabet la koo xam ne tamit li muy tuur ndox dafa bari si jabet la kon ñeent yooyu daal nit ki bu ko euh, mar remarqué si boppam war naa njort ne dafa amee li nga xam ne moom mooy jabet loolu nag da ngay njort rek waaye boo njortee ba pare da ngay dem ginaaw bi nga demee hôpital ñu xoolal la sa defal la analyse bu fekkee euh, analyse bi nag am na fu muy toll rek bu boobaa ñu mën na koo fi dafa amee jaay jabet nag dafa am ay complications yoo xam ne nit ki tamit war na koy bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne mooy pied diabétique moom lañ si gën a ràññale ndax ci kaw loolu sax am na yi nga yi nga xam ne si biir si ñi mën nga koy am comme nit ki tànk yi di nagam wala wala mu perte sensibilité di dox dàll yi nga xam ne moom lay dox nga gis ne euh, day simmeeku sax te du ko yëg yooyu ay signes yoo xam ne signes yu nit ki bu koy def rek war naa njort ne amee na jabet wala am na beneen feebar boo xam ne wàllu neer la yooyu euh, am na li nga xam ne mooy problème mu bët tamit li ñu naan rétinopathie diabétique yi Eh, d'habitude ñi amee eh, jabet tamit mën na mën na laa gumbaloo jabet aussi mën na laa andil feebaru xol jabet tamit mën na laa andil tension kon yooyu yëpp ay complication traitement wu jabet nag à vie la maanaam jabet traitement bi ngirub dund nga koy nga koy jël waaye li ci ëpp solo mooy nit ki euh, mooy mesure hygiéno-diététique maanaam ni muy lekkee d'habitude sax dañ naan la régime waaye ñoo wax sax le mais alimentation équilibrée parce que moo régime bu ñu koy wax dañuy dañuy nit ki mën nañ koo psychologiquement mën nañ koo atteindre mais alimentation équilibrée moom ñëpp a ko soxla ki amewut jabet sax da koo war a soxla kon ki ñu jàpp ne dafa amee jabet lekk gi muy lekk même ki amewut jabet noonu lay lekkee ndax xam nañ ne sucre bi ñuy consommer de façon courante di ko lekk tous les jours si kafe gi si si si si ngoon gi si ataay su sucre boobu xam nañ ne ñun ñëpp xam nañ ne baaxul Euh, kon nit ki dafa war a am benn alimentation boo xam dafay varier aussi maam añ bi li ngay lekk tey wuuteeg li ngay lekk suba li ngay reere tey aussi wuuteeg li ngay reeree suba te mu nekk lekk boo xam ne tamit qualité lay nekk au lieu que mu nekk quantité loolu daal jàpp naa nit ki bu koy bu ko def am programme am planning am su ko defee dina dina kii tey di def sport ndax sport moom nekk na euh, méthode boo xam ne daanaka ñëpp dañ koy wati dañ koy wati def waaw loolu loolu moom day am solo bu baax a baax euh, kon daal loolu la di fagaru mais bu fekkee ne dara dara dëlu la chaque six mois wala chaque at nga dem xool sa sucre fu mu toll def benn bilan boo xam ne dina la permettre lépp loo xam ne dafay joxe sucre wala yooyu nga man koo fàggu bala muy ñëw loolu lañ leen indi loon jërë ngeen jëf ba beneen mercredi incha allah kër docteur Gaye àllarba bu jot fii ci UCAB FM